leen sama askan Ladoum TV Ladoum TV Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan 48 taxaw ak un ñu toog mu nekk euh, laay ñing macha allah muy liggéey ci élevage bi liggéey bu rafet liggéey bu yéeme macha allah tey mu nekk seen quatrième édition laay naka nga dundee quatrième édition. waaw sol ñu ngi lay ziar bu baax euh, di wax alhamdulilah rabbil alamin euh, di baalu ñëpp àq ci koor gi di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla ñu yàlla nangul kooru jàmm yàlla nanguñ suñu jàmm yàlla ñu ci def yëpp. Euh, quatrième édition moom satisfaction lañ ci am bu bu bu bu total sax wax dëgg fa yàlla te à tout point de vue ndax euh, lii moom c'est pas une ñu koy organiser ren mooy suñu quatrième édition mais wax dëgg fa am nañ si satisfaction nag su le plan organisationnel xam nga sur le plan des des visiteurs le plan de l'exposition sur le plan de la communication aussi macha allah quoi donc franchement satisfaction lañ ci am. Hmm. ah téléspectateur Ladoum TV yéen a déggandoo loolu. satisfaction totale lañu am tey nee nañu ku yokkul da ngaa wàññi te tey waa Relais dañoo yokk naka nga jàngatee organisation. waaw organisation bi euh, d'ailleurs di euh, remercier au passage waa team organisation dirigé par le Baye Fall Moustapha Mbow ak euh, waa cellule communication ak commission scientifique bi parce que ñoom ñëpp ñoo bokkoon affaire yi macha allah organisation moom rien à waaw œuvre humaine moom du mat à 100 pour cent mais bii moom ñun am nañ ci satisfaction ñun à 100 pour xam nañ organisation li ci nekk dafa métti mais macha allah gars yi ay jàmbaar lañ waaw ils ont ah, les délais respecté nañ ko xam nga avant phare bi un jour avant phare pare nañ lépp installé lépp macha allah exposant ñëw nañ et puis macha allah gis nga ne couloir yi dégagé nañ xam nga box yi aéré nañ respecté nañ dimension yi 3 mètres sur 3 xam nga macha allah daal organisation bi daal ñu ngi jaajëfal gars yi ci nekk yëpp waaw. waaye en tant que secrétaire général naka nga dundee waaw bégte nag bégte bu bu doy waar ba nga xamante ne ñun euh, xam nañ fu fu muy commencé mais xamuñ sax fan la yem ndax ren dafa am benn euh, mbir bu ci am mooy président Dame nga xam ne mooy suñu président dafay nekkul d'ailleurs une pensée pieuse à lui parce que nekk fi ñu affaire bi tegu suñu loxo ñu koy gérer donc loolu moom ñun satisfaction bi ñu ci am sax yàlla moo xam ndax euh, ñu wóolu la dégg la dafa xaw a diis surtout ñi la ko dégg nekk ay ay ay éleveurs yi nga xam ne du ñu ay éleveurs yu yu mën a tudd ci élevage bi ràññeet leen mu nekk ay jàmbaar ay fàqtali yoo xamante ne franchement dañuy góorgóorlu di débrouiller ci élevage bi franchement jox la mission bu mel nii boo demee ba am ci satisfaction moom sant yàlla bu baax a baax et puis écho yi ñu am favorable la bu baax a baax a baax waaw. wax dëgg faal ndax ku ñu gis nañ ñu félicité dañu encouragé nañu franchement li ngeen di def nii bu déwénee sax lay gën a neex waaye lan mooy seen secret ba ngeen mën a organiser ci quatrième édition lu toll nii tey ngeen yokk ay box jël chapiteau lan mooy seen secret kan moo nekk seen ginnaaw. waaw suñu ginnaaw nag moom su ma gars yi wax kenn dewul suñu ginnaaw mais dama wax ne am na ñu nekk suñ côté ba ginnaaw parce que ginnaaw gi moom day xaw a diis mais am na ñuy nekkal nag ñi nga xam ne dañ ñuy jàppale ku ci mel ni Oma Touré de la Baguette d'Or moom duñ ko gërëm duñ taay di ko gërëm wax dëgg fa la tey fa lañ dem dogoo ji tey parce que moom wax dëgg faal depuis deux troisième édition ba léegi muy ànd ak ñun ñu jàppale nekk suñu grand nekk suñu xarit euh, suñu ginnaaw moom yàlla suñu borom moo ne suñu ginnaaw parce que moment bi ñu choisir def ramadan des éleveurs bi moom solo moo ci weeru koor weeru koor ku ko xam-xam ne weer bu barkeel la weer bu yàlla gërëm la ci la yàlla wàcce alxuraan xam nga guddi gi gën ci guddi yi ci weeru koor nag mooy Laylatul Qadr donc moment boobu boo ci choisir def dara pour man yàlla suñu borom moom mooy barkeel loolu quoi man loolu laa jàpp ne moo ne ci ginnaaw rek waaw am na nag ñu nekk suñ côté comme ni ma koy moom euh, événement bu réussir rek am na ñu ci jàpp quoi waaw muy partenaire yi ñu àndal yooyu waaw téléspectateur Ladoum TV yéen a déggandoo kàddu yooyu ku mën rek dafa am ñu nekk sa wet di la jàppale tey jii laay wax na ñi nekk seen wet di leen jàppale wax na tey organisation bi ñoom niñ koy dundee niñ ko defee ak tey li ñu jël di ko def ci koor gi di joxe ay ndogu macha allah di ñaan yàlla suñu borom mu nangul ñu suñu koor lépp lu waaye def ci lu rafet rek yàlla fulal la ko tey jii ñu dugg ci biir xari nag laay ñu gis ci biir xar yi nga def sélection indi fi benn maal bu bu rafet maal bu am wet laay maal bi mooy kan. waaw maal bi nag moom damay am euh, sentiment bu rëy bu ma ciy wax ndax maal bi au fait sama benn xarit bu ñuy wax Cheikh Bari moo ma ko jox te bi ma ko joxee man maal bi euh, dama ko bokk ak waa réel yëpp ndax maal bi foire bi rek am na fi 14 doom. waaw mooy partage solo bi mu ndax man maal may doon daaw building gaa sañ ma toñño building li mu fi def xar du ko fi defaat te building dafay doon 15 doom daaw faaru daaw bi ren maal bi ñëw indi fi 14 doomam maal bi tudd As Joxaane euh, di doom ci Daaru Salaam Daaru Salaam di doomu magistrat ak Seexu Soleil bi ñu wax lul yaayam di doomu Boy Gañ ñu wax orange donc maal bi moom koo xam ci pedigree xam ko ci wax richesse ak sang ak pureté xar nag mooy wax xar maal boo ko ne jàkk am na connaisseur yu bëri bu ñëwee muy dañ koy romb rek taw xool na ma maala ngi nii ba ma koy recruter nag loolu laa ci gisoon ndax ba ma fa fekkee maal ma fekk ñoo ko ëppoon wax dëgg faal dayoo mais ba ma gisee ne jàkk laa xam ne maal bi daanaan la ko ci laa maal bi laa jël waa jox ma kii pourtant boobu am na doom bu fa newoon bu bu sax am ay beneen maal bu fa newoon bon doom macha allah bu doy waar mais maal bi franchement bi ma ko dugale la ma ci doon xaar yëpp defal na ma ko quoi waaw macha allah as joxaat na la nekk un vrai géniteur bu wóor sax waaw macha allah ba pare di ko reproduire nag parce que boo xoolee doomam bi sax ak moom da ngay xam ne boo gisee doomam da ngay xam ne kii moo ko jur ci biir foir bi yëpp nag waaw waaw. ah téléspectateur Ladoum TV yi yéen a déggandoo loolu bu ngeen xoolee maal bi li nekk ci maal bi capital génétique bi nekk ci maal bi ku gis xar bu mel noonu da nga koy wuti ji te laay dem na wuti ji ko téye ko nag boo xoolee ci biir foir bi 14 doomam mi ngi si kon loolu mooy élevage partage. tey jii maal bi naka nga jàngatee production côté góor côté jigéen. maal moom il est polyvalent man damay ne maal moom essuie-glace la quoi moom day def jigéen di def góor parce que boo xoolee bu ma juumul meilleur jeune maal yi nekk ci foire bi fii suñu génnee suba di nga ko remarqué dana doomam dana ci bokk incha allah meilleur añeel yi nga xamante ne nan nañoo génn suba soo xoolee doom bu jigéen dana ci bokk incha allah ay doom bu jigéen sax la waaw loolu moom nañ bàyyi ba suba ba xarit génn quoi maal bi dafa mën maal mën femelle waaw ndax moom nag yaayam aussi dafa ne nekkoon maire agnel Saladam 2016 orange waaw donc xam nga kon xar bu juree jigéen moom wàcc na mais papaam Daaru Salaam ku ko xam-xam ci wet ci doomu magistrat yi gën a gudd ci la bokk waaw man Daaru Salaam yàlla dafay def ne nit sax boo bëggee dara souvent yàlla dara ci man Daaru Salaam bu ko gisee dama doomu magistrat bi bokk nañu ma gën a impressionné yàlla dafa ma am doomam mais maanaam il est polyvalent quoi ah, loolu am na solo waaw ba tey ci biir box bi gisaat nañ fi benn grande femelle. def benn teg bu noir kooku mooy bu marron kooku mooy. Euh, moom sama xarit bu baax bu ñu oustaz Ali Mara moom ma ko joxoon moom doomu Arfan la Arfan doomu Bachir la ak Koddu Koddu ku ko xam ne doomu góor gi la Bachir ku ko xam xam ne sëtu góor gi la ñu croisé leen. Arfan mook mook Kayser ñoo bokk ndey ak baay mook ñoom màggal ak ay salmachement bu doy waar ñu jël ko teg ko ci benn doomu Abdou Fall doomu Abdou Fall ba nga xam ne dañu jël doomu ziar bu jigéen teg ko ci Abdou Fall doomu ziar boobu doomu Badlil Sikki direct moo ko jur donc bi ci suuf si la bokk. ndax na dañu jël doomu doomu Batlin teg ko ci Ziad mu jur femelle ñu teg ko ci Abdou Fall mu jur yaayam ñu teg ko ci Arfan moom mu judd ci waaw mu nekk une femelle ba nga xamante ne li aas di def lay def moom du rafet xar góor comme jigéen loo ko jox mu indil la ca des franchement waaw nekk femelle ba xamante ne euh, wax dëgg fa la téewuma sax doom yu bari ndax lu baax moom li ma rek boo doo ko bokk quoi da nga koy partagé ak ñi saa yoo amoon dama ciy jox gars yi ñu partagé ba léegi law na moom aussi am na ku fi exposé kii ma ko joxoon muy aari bi ma ñëwee sama kër am fa doom bu góor ak building dama ko delluwaat mu jur fa ay moto yi doy waar ci géttam et puis aussi loolu la ko partage waaw partage ba tey ci biir élevage partage boobu gis naan fi benn añel def rob bu ñuul kooku mooy kan euh, mooy taaw aas ci kër gi waaw moom yaayam doomu building la mais Mistral li ma ci neex mooy ay arrière arrière maama man maa ko juddul am ay xar maintenir leen ba fu muy toll ci yenn niveau yi dal ci Mistral ñaari xar yi ma njëkkoon jënd commencé ko élevage dañoo jur benn femelle ma jox ko sam benn xarit aal ko maal maal boobu tëb femelle am tëb tëb bi ñu jur bu jigéen ma may ko tëb ci mbillig bu jur jigéen ma jox ko aas mu jur mistral donc xar bi sama produit à cent pour cent la waaw donc mu nekk satisfaction bu garaaw moom synthèse la parce que sama xarit yi maa yi jaar kër gi dañ ko laal ba ci as mbuñu mooy mooy papaam quoi mu nekk añal bu jara bàyyi xel nag ñu ñaan yàlla rafal ko cat xam nga musal ko ci làmbañ ak yooyu yëpp mais buñ ko bàyyee tôt ou tard ci élevage moom buñ ko bàyyee di ko dégg quoi incha allah waaw laay li duuf ci nag bi lépp xajul si cin li laa Ladoum TV yéen a gis sélection bi laay def nga xam ne sélection bi ay xar yu raar ñoo fi nekk ay xar yu pure ñoo fi nekk ay xar yi nga xamante ni si capital génétique bu extraordinaire li ñuy wut ci xar yëpp ñu ngi ci ñoom ah laay nga fàttali ñu bergerie bi fu mu nekk ak sen numéro téléphone. waaw bergerie mooy bergerie sëñ Abdou Hakim Mbacké euh, mu ngi nekk fii Guédiawaye Amosis euh, téléphone bi di 77 494 22 89 wala 77 617 73 67 boo ñëwee ba Amosis rek euh, boo ma wooyee rek incha allah naa yóbbu ci nañ la indi ci bergerie bi boo duggee aussi ci géolocalisation boo tappee bergerie sëñ Abdou Hakim Mbacké rek bu tracé la kër bi nga ñëw fa directement quoi. waaw donc boobu neex na xam kër gi soriwul tali amosis bi boo fa ñëwee rek da nga fa yegg si incha allah ba pare kër taalibe la quoi ku ñëw rek ñu dalal la et te xam ne élevage aussi euh, lépp teranga la quoi waaw ndax ki lay jëriñ ëllëg donc nañu rafetal suñu diggante suñu biir diggante ñun éleveurs yi te xam ne lii xar la ñun ñoo ko bokk te xar dundam dafa gàtt maal mu maal yu dund 10 ans sax pour nga gis ko problème la te doomu aadama ci boom sax moom dundam yàggut wax dëgg ma laa xar moo tax xare nañ ci rafetal di ko bokk ak ñi nga xamante ne ñoom ñoom lañ nekkal ensemble man moom loolu laa gëm lu baax bu la ko yàlla joxee dala ko jox pour nga bokk ko ak nga nekkal soo xamee loolu rek doo sonn j'ai un ami dafa ma mos a wax lan mooy sa secret lu tax maal boo am muy tàkk ma ne ko loolu du secret intelligence kese la amal maal bokkoo gaa yi ku ci am bu nekk xarab bu yàggee bu bu ñu bëri boo amee ay doomam mu nekk xaru ñëpp loolu kese la waaw donc secret bi partage moom moo nekk lu gën a gaaw a divulguer xar gën ko gaaw a explosé loo mais na nekk xar bu baax nag ndax bu boonee moom kenn du bokk ko bokk ak yow waaw macha allah. kàddu éleveur bu mag la ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax macha allah élevage partage partagel nag li ñëpp bëgg li nga gën a bëgg sa xol partagé ko loolu mooy élevage partage jërë ngeen jëf. sama askan